wa ni ñi sàjje moy d'abord yow bo la ham da ngay xam rabbi japp kan la ba paré so xamé rabbi japp kan la si par exemple indiñ leen la malade bi nga dal di ko sefu def say say affaire sur ko def say jat laaj def say affaire mu ne la man la maam jare lo bëgg si doomi jambour ji mu ne saytaanee ko don dugg wa légui saytaanee ko don dugg ma protéger ka, mah mamam ñoo don legi légui damay bañ ñu yaax ka jëndal ma aw bay nga tëggalal ma ka ñaari fan ay ca nga dal di ñu indi la ñaari junni nga jël joki jox temer jël téeméer jox ki jël téeméer yob ki indi reen ki indi sunguf ki indi garab ki indi garab ñu dajalé ñew jël lekket def si dugub ñu jëlee lekket def si dugub jël reeni kenn ku nekk jat o sawrap duggal ci ñu duggal ci biir néeg bi o gewel bi mu for derum mo xam der bu muy foré ak galan bu mu lay kiwe ak bàkkayam lay bakal ñu dal di la teural mur la ñu la tëralee muur la dal di la sàng juróom-ñaari njoor wala fukki njoor ak ñaar daal di la laxas perkaal perkaal boobu nag buñ la koy laxas dañ la koy laxasaade ak 19 fatiha boo génnee àdduna ñu ngi lay laxas ñii juróom-ñaari mètre lañ lay bu dee ñun laayeen fukki mètre ak juróom lañ lay laxas dañ lay laxas comme ku génn àdduna waaye dañuy takk ba yu tëral ko ba yu tëddee ñu tegal la njegenaay tëdd la ngeen couple tëdd ñu daal di la laxas euh, daal di leen sàng perkaal bi daal di jël njoor mu weex yow sëriñ bi yaay génn njoor mu weex daal di ko ko muur bëy bi dañ koy laxas muur ko ba bakken bi day man nooy rek lay def waaye yow mii nga xam ne ni yaa malade ñu tëral la duñ la génneel fenn foo nooy yee waaye nooy sax ne dara am na mm. boo tëdd da ngay nelaw doo ko tey dégg ñu daal di continuer nag daal di la teg njoor mi juróom-ñaari ayatul kursi yaay e sër bi mu la boote moom lañ siy teg juróom-ñaari ayatul ñaar moom lañ lay teg bu ñu jëlee sa bàjjen am njoor teg onze alam nasra euh, laxat jaakum noonu ak aay yu bëri du ma teg teg ba mu mat fukk ñaar wala juróom-ñaar mm-hmm. ñu daal di nëg di euh, hymne national rab bu ne daal la oo daal la oo di la oo di sant di woy di tëgg mm-hmm. bàkk yooyu ñu lay bàkk nag du tëgg rek fecc yooyu ngay gis ñu la du tëgg rek fecc yow noo tudd. yaasin Yacine. Mm-hmm. léegi Yacine mm-hmm. yow ku la doon méngale ci alxuraan lay yóbbu mm-hmm. dama lay wax rab yu nekk ci sa wàllu judd dama koy bàkk dama koy tëgg ci turu Yacine boobu da koy tëgg ay code la mu daal di sotti noonu la loolu la ñu wax ndëpp. loo loolu la wax ndëpp mais nee nga ay alxuraan da koy accompagner te dañuy dégg ni que ndëpp dafa araam ci lislaam ñàkk xam la dañu xamul kuy wax dafa xaraam xamuloo. xam nga lu xaraam li yàlla xaraamal loo gis ci kaw suuf jaam di ko dunde mu dagal yàllaa ko jox Seydina Jibril mu jox ko Muhammadu Rasulullah mu wàcce mu wàcc alxuraan dégg nga li ma lay wax loo wàcciwul si alxuraan rek amul dégguloo fu yàlla wax si alxuraan dëpp amul. kon lan moo tax nitu diine yi di wax ni dafa araam. bannam nitu diine moo taxaw ne dafa araam wax leen ma kan la am ñiy waaraate ñoom lan la ñuy waaraate ñoom ku leen jàngal la waare dañu xam déggoo man la ñàkk xam la. maanaam waxuñu ko fenn ci alxuraan. amul fu maam El Hadj Malick. Ahmadou Bamba. Cheikh Saad bu borom Ndiassane borom amul kenn ku ne ndëpp nii nii amul si si ñoom. wala man dama gisagul téere bi. Euh, d'accord seytaane naka lay naka lay. bëgg naa la leeral li war a tax ñu naan dafa xaraam. Mhm. tëgg mi fecc mi. tëgg mi ak fecc. seytaane nag dafay dem si nafsu bàkkenam seytaane. dafay dem si naf su bakkenam dem boobu muy dem si naf su bakkenam loolu moo tax ñu ne def haram mais liñ siy def alxuraan lañ koy defee alxuraan lañuy ñuy sampe ndaala xam nga amul ku dul lekk suppame ku dul lekk ñambi reenu daxaar la reenu sump reenu new reenu aloom te lii may tudd yëpp dañ koy lekk loolu amul sulu si haram d'accord euh, naka la seytaane walla jinne ah, xaw ma ban nga ci wax sànq mm-hmm. naka lay jàppee nit ba ñu wax ko ndëppal waaw kay ni rab di jàppe nit nag ñu war kaa ndëppal dafay fekk man samay maam mhm. ñoo pacte woon pacte ak rab yi ñu ñëw si dëkk bi par exemple dëkk bi existé wul amul dara ñu dem si benn àll bëgg faa camper fekk rab fa dëkk ñu ñëw toog si place bi rab bi lan ngeen fii def jóge leen sama territoire la ñu ne dañ bëgg dëkk ak yow mu ne ah su ngeen bëggee dëkk ak man da ngeen may defal lu ma bëgg ñu ne loo bëgg ñu ne bëgg naa chaque at mu ne ngeen may ma fii dugub tegal ma fii dugub ma di si lekk di si naan ngeen tegal ma fii soow ma di si naan ma samay doom waaye nag su ngeen ko defee ër sàngam di leen fay làmpe yi heure sàngam di leen def nangam ñu dëkk mm-hmm. ñu dëkk dëkk dëkk ba jamono jamono naataange amoon ñu demaat si rab bi ne ko waaw yow dëkk bi naatul mu ne man day bëgg naa may leen naataange gannaaw yàlla yàlla yor naataange mm-hmm. waaye rab yi dem si géej tànqal utal leen aw jën ñëw jox leen ñu dundee jën wi rabo daal di jël dugub jox leen ne suy leen ko si dëkk bi su ngeen kër suyee si dëkk bu ngeen bayee dina am ñu def ko mu am rabo toog ba benn jamono feebar bu bari am wala ndóol am wala ñàkk am wala silmax am wala leneen am ñu delluwaat sa rab wa léegi nag rab bi ne leen maa ngi leen di jox rek te defalu leen ma dara waaye feebar bii dina ñëw su ngeen si bëggee mucc jënd leen nag wu ñuul jënd nagu wu weex jënd nag wu xonq dem leen place bi ci digg dëkk bi ngeen ray fa nagu ñuul bi ngeen def ko nangami sarax ngeen saraxe loolu mooy indi ndono léegi yow tey su ma la si juree nga dem sëyi juwaalo kooku am foofu doom kooku am foofu muy diis doom ñooñu mucc nañ si rab loolu moo tax rab di tas léegi masulaa dal masulaa dal ba ngay def examen wala ngay def bac saa yoo defee bac du am saa yoo defee bac du am ñu ne la oññakul si sa judd nga dem foofu ñu tuur la soo ñaanal nga dem am d'office